si Haj Malick li tax mu nekkoon sëriñ boo xam ni dafa yéeme woon mooy école bi mu génne xam nga bëri na ko lay wax ni dama koy wax toujours gars yi ñu réew san dama ni parfois nit la maa ngi génnee école bu nekk exemple Italie mais xanaa am na benn africain bokk bu mu bokkaloon école boobu mais ngay Sénégal ni école sàngam nga génne te amul benn sénégalais boo bokkal école boobu amul benn doomu Afrique boo bokkal école boobu nit ñu war nañu xalaat Maodo honnêteté xam-xam la am honnêteté xam moo tax ñii nga xam ni ñëpp dañoo génne ci daaraam ay modèle lañu mais lan moo ko may lool nag mooy defaru intérieur maanaam nit mën na nekk sëriñ te intérieur am du defaru moo tax góor gi ma Samba Sarr da koo laaj ni ko lu tax li xew sunu kër yi xewul sa kër Maodo tontu ko ni ko moonte li liy xew seen kër mi ngi xew sama kër góor gi ni ko lu tax sunu kër di yëngut sa kër yëngutuwul mu ni ñaar rek la joxe lu ma sañ a bañ joxe lu ma sañ a bañ ak nangu lu ma sañ a bañ joxe lu ma sañ bañ ak nangu lu ma sañ bañ pour wan la man Seydi Hadji Malick ni mu nekkee sëriñ boo xam ni ni muy def njabootam fii ci dëkk bii boo demee dakaar du ma tudd tur dafa am ñaar ñoo xam ni ay magal rak lañu réeroo kii di njabootu Maodo kii di njaboot feneen mu yàgg lool nag ñaar ñu réeroo ñooñu di mag rak kenn ki di njabootam kenn ki di njaboot feneen mbir ma diis lool yàgg Sëriñ Maal woolu ko ne ko demal nga jël teraanga donte dañ la tooñ nga dem yóbbul ko ndax nit amul lu dul mbokkam waaja boole waa kër ndeyam mat nañu dix personnes mu jël teraanga yu ne xëy rek ne saraax ci biir kër frère bi ñu gaawantu jël ay ngànnaay mun ko dama bu fekkee ni man maa la tooñ maa ngi lay balu su fekkee yaa ma tooñ baal naa la toxalal ki ñu fekk si xam na ni moom moo tooñ xam lu mu ko tontu dafa ni ko lii nga def du yow danga maa gën sëriñ lii nga def nii du yow sëriñ lañu ñu wuute kon lan laa la bëgg a woon ci loolu dama la sëriñ Hadj Malick jëmm la joo xam ne ku mu jëflanteel soo génnee nit ñi topp la mais ci jikko parce que nit mën nañ ko topp ci xam-xam mais topp ko ci jikko moo gën bul fàtte la ma waxoon maam aadi ñaar laa bëgg ci abdu xam-xam ak nga yar ko su benn dee manqué na xam-xam manqué te yaram kon ñi génne ci daaram ñëpp am na génn góor goo xam ne mi ngi nekk ngumb ngeewul góor gi Alioune Ba dafa wax benn wax bu rëy dafa ni xasirtu anil mashaiqi ajmaina ila cheyqi murabbil waaridina wa ayni laa tara ahadan siwaahu wa qalbi fiihi muzhulu xaniina fa miimun summa laamun summa kaafun habibullahi dëhra daahirina dafa xeere ni ku tudd sëriñ génn naa ci yow wax boobu rëy na de mhm. nee na ku tudd sëriñ non génn naa ci yow ñun ko ñëpp mu ni non kii moom maa ngi ci moom ñu ko kan mu ni koo xam lettres yi moo formé turam miimun walaamun wakaafun ñu boole ko muy maalik mu ni kooku moom maa ngi ci moom te xam ngeen ni góor yàllin ba bu ngëmba ngeewul dégg ngeen li ñu wax sax fiñ ko suul yonent bi du fa gëj Cheikhu Tidiane du fa te kooku njabootu Cheikh Sidi Hadj Mal la kon bu ñu ko bëggee jël sëriñ bi ci fànn bu nekk ci wàllu xam-xam ci njaboot ñëpp ay modèle lañu te da xool rek li nekk ci biir réew mi daara yi fi tegu ci yoon yëpp kaar kaar macha allah loolu nag du waxu par parloo du waxu jamono xam nga nit ku def ci poosam deux cent mille wan la ko ñu la billaay maa ngi deux cent mille kooku tiitarul waxul lu dul dëgg kon li ma bëgg a wane ni mooy daaray Seydi Xaaji Malick koo gis mu am xam-xam koo gis mu am xam-xam jëfandikoo xam-xamam xamal ni ci daaray Seydi Xaaji Malick la génnee moo tax doomam ju baax Alaaji Mansuur ne ko yow tuuma topp la cheyqun taqiyun laa yuzann bi ribatin al istixaamati bil ilahi muaani ko bàyyi du càggin li nga ma jur gis naa nga jëfandikoo jëfandikoo boo xam ni tuuma topp la ci sa jëm ndax man nga am xam-xam tuuma topp la mooy di jàngale loo dul def boo demee suratu baqara yàllaa ngi naan a tamuruuna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum te wa antum tatluna alkitab si xajmaa li mu jàngale yépp moom la jëfandikoo maam Mansour ni ko tuuma topp la tuuma toppul say soxna tuuma toppul say doom tuuma toppul say sët waaye tuuma toppul say taalibe kon su ma bëggee ton sa ton dama lay wax ne Siraaj Malik ci xam-xam la formé mais ci biir xam-xam bi dafa am leneen lu mucc ci dolli plus bu gaay dul dolli mooy jikko